bu xaree géej gi sa waay nañ xam ne Sénégal kon yàqu na. bu ko xaree ma naaw. bu ko xaree rek ma naaw. du ko xar koo kay yaa même pas à lésiner là-dessus dara la dul xar. ñun daal moom franchement a amuñu ci benn espoir ndax te loolu gëmuñu ko sax defuñu ko sax suñu xel yi. ni leen di gëñal ne ku ku bind sama bakkan bii bi si yomal assurance yi tàkkusaan danañ xotti géej gi def ko maanaam juróom-ñaari mbedd boobaa yéen ñi newoon fii nag doon weddi boobaa dama ba ngeen seen rajo wax. loolu laay lancé loolu kon boog événement bi nañ ko waajal def ko événement boo xam ne warta nekk événement bu ndaw événement du siècle lay doon parce que day nekk benn doomu sénégalais boo xam ne si Afrique noire bi man maa ko fi njëkk def muy Thierno Amadou Koumkandé kon loolu victoire la fierté la maanaam si ñun. waaw ginnaaw bu ma sant yàlla di nuyu askanu Sénégal ñëpp Koumkandé li muy wax yëpp yëpp yëpp ay xar géej géej yooyu yëpp ay karaama la mais man gëwuma ko benn yoon. waaw gëwuma ko benn yoon ndax karaama ci boppam dañ ko araamal ay def ay karaama nag su dul noonu yooyu baaxul Kounkandé du xar dara du xar dara su mu nee dara na wax ci corona bi mu juge fi mu jeex mais du xar dara lépp lu muy wax ay kàcc la. am lu ma naqari loolu ci loolu ndaxte euh, il faut waruñoo fooy suñu diine dafa am loo xam ne nii dafa jaaduwul ñuy may sax nit muy toog ci plateau télévision di ko wax. un ñaareel ba suñu kilifa diine yi fi nekk. duñu moroomu Kounkandé moomu doo dégg mukk ñu xalaat wax wax ju demee noonu loolu kenn moo ko fi def mooy Cheikh Ahmed Bamba kese moo ko fi def de sorte que Kounkandé moomu wax leen ko ne ko na arrêté lii muy def. bu ko xaree ma naaw bu ko xaree rek ma naaw. franchement waa ji moi je pense que c'est un farceur euh, euh, il euh, ne référé wu tuuti ci yeneen yàlla Moussa temps biñ ko doon jox da nga maam nu mu def ba xar géej gi. Ah, nous ne sommes pas au de des prophètes. Ah, c'est un être humain, simple être humain comme les autres. donc euh, na moytu wax lu mu mun ta def waaw euh, euh, ñu ngi koy xaar gis ndax mun na réaliser miracle boobu. mënu ko peut-être day xumbal nii rek wala muy wax pour nit ñi di am confiance ci moom affaire yooyu loolu laa koy jàppee de mais yaakaaruma ne moom mun na xar géej gi moom loolu moom yaakaaruma ko bala ma kaa gëm. man dama see teg sama bët. ñu ñu ngi toog di ko xaar ñun ñëpp comme moo taxaw si média yi nee na dina xar géej gi incha allah incha na ñu des yàlla ñu fekkee ko moom it mu am jàmm Sénégal yëpp am jàmm ba ñu xool ba xam dina ko xaram du ko xar ñun de chauffeur yi def nañ suñu oto yi plein gasoil taxaw di ko xaar bu ko xaree moom ah dina doy waar torop moom waaw dina bett Sénégal yi tamit parce que instant bi ñëpp nee nañ mënu ko xar mais kenn xamul yàlla rek xam ba jour si nag ñu xool nu muy demee incha allah coow li bëri na Kounkandé mu ngi naan dafay xar géej gi ñëpp di wax fu ne mais bon man sama opinion ne nekk comme moom nee na nañ ko jox bénéfice du doute comme moom nee na mën na xar géej gi nañ ko bàyyi en plus que ni disposition yëpp may jox nañ ko ko may jox nañ ko autorisation yeeg donc na ko def ñu toog di ko déglu di ko xaar nañu bañ a jugé rek toog di xaar ba xam ndax mën na ko wala mën na ko mais nag j'espère que nag bu ko defulee nag moom bu boobaa nag vraiment je demande à ce que autorités yi vraiment ñu jéem a xool neneen nuñ def parce que lii vraiment c'est <laughs> c'est un peu grave quoi. <laughs> mais tey bu ko defee ban jeexital lay def ci Sénégal ak Sénégalais yi. ah j'espère que dina am tout changement et tout mais bon yaakaaruma ne nag dina impacter autant sénégal yi bu ko defee. ñun daal moom franchement parlant amuñu ci benn espoir ndax te loolu gëmuñu ko sax defuñu ko sax suñu xel yi. bu xaree géej gi sa nañ xam ne Sénégal kon yàqu na. waaw Koukandé mënu fi kilifa yu diine yi ne kilifa yu mag mag yi nefi benn kii jógee fële ñëw xaw ma ay lanti la teg kenn xamul ñëw naan day xar géej du xar dara. du ko xar du ko xar du ko xar laa wax du ko xar koo kay y a même pas à lésiner là-dessus du xar dara dara la dul xar waaw maa ko wax du xar dara. xel nangu noo ko xel nanguwu ko parce que da ngay gis ñeen ñi ku nekk ñii naan mën na am ñii naan mënul am waaw mais daal kenn xamul. maa leen di gëñal ne ku ku bind sama bakkan bii bi si yoomal assurance si tàkkusaan nañ xotti géej gi def ko maanaam juróom-ñaari mbedd boobaa yéen ñi newoon fii nag doon weddi boobaa dama ba ngeen takkaat seen rajo yi wax loolu laay lancé loolu kon boog événement bi nañ ko waajal def ko événement boo xam ne warta nekk événement bu ndaw événement du siècle lay doon parce que day nekk benn doomu sénégalais boo xam ne si Afrique noire bi man maa ko fi njëkk def muy Thierno Amadou Koumkandé kon loolu victoire la fierté la maanaam si ñun léegi génn na Dakar dem na ca Ilusoriya ñooy ñaat gouvernement Sénégal bu ngeen mën koo mënee récupérer topp ko bata bi ko Sénégal ndax huit heures dafa war a xar géej gi Kunkande daw na de Sénégal Kunkande kan na daw na information bu leer laa leen jox jël na bato bi génn na Kunkande daw na génn na Dakar kela wal wadi kela badede badede bare ka dara da kombo o di da kombo e ma ko mo de la ko de ka ko ku dara e ma ko mo ko jeji da kombo e boy boy ma boy e a ki jeto e boy Hey, yéen wàcc leen yéen di jaamu ji. waaw jërëjëf tey boo xoolee tey auteur bi ma koy xotti mën naa ko xotti tey mi ngi mel ni maanaam tey nga tiim xool immeuble boo xam ne troisième étage la nattee ko ci distance boobu xam nga kooku boobaa tey distance bi sore na xoolal autoroute troisième étage mën naa koo xottee noonu tey def ko maanaam juróom-ñaari mbedd yaa ngi dégg ba pare nag jàll dem nag. booy jàll da dem wala da ngay damay jàll dem ku ñeme rek topp ma ku ñeme rek topp ma ku ñeme rek taxawul dem. yaa ngi dégg bu baax su ma demee nag ba nga xam ne caméra yi kenn gisutuma boobaa nag si si ndigal ak si ndigal ak ko xottee woon ba mu jàll mun naa jaaraat si ndigal kooku tëjaat ko. kooku mën nañ ko xam kan loolu dañ koy nëbbu. dañ loolu baatin la. Mhm. kooku dañ koy nëbbu. waaye danaa ko xar si ndigal kooku jàll dem sama yoon ku ñeme nga topp ma. incha mooy yoomal asura si tàkkusaan boobu noonu su ma demee ba nga xam ne caméra yi kenn mënatuma gis boobaa nag ma taxaw nag teewaat yat bi ñaan si ndigala ki nga xam ne tey moo ma joxoon usine boobu ma tëjaat ko si ndigalab kooku maa ngi lancé défi si loolu pour war na tey Kunkandé boo gisee tey mi waajal muux ci jaas bi dafay ñëw pour dooleel maanaam tey jullit ñi pour war leen ñoom xeet bu la bu yàlla yërëm xeet la boo xam ne ñoom ñooy njëkk jun dugg aljana bi su penc yaa ngi dégg ma joxaat misaal ma leeral ko tamit yontu yàlla Iisaa mooy nekk yontu boo xam ne moom lay njëkk taaj bisum penc danaa ko leeral tey jaam yàlla ñu xam ko ustaas yi nga xam ne seen xam-xam fii la am génnuñu yontu yàlla Iisaa ibnu Mariama dafa taxawoon ci xeetam ne leen man benn jaamab yàlla laa bu bàyyee ko suñu borom du ma yàlla xeetam mi ne fexe na ba tourné nag dëpp carte gi moom yontu yàlla Iisaa yàlla la Mariama yàlla la bisu penc yontu yàlla Iisaa mooy njëkk taxaw lay wax suñ borom ne maanaam loolu mu teg xeetam yi ne la nag moom yàlla la dana ko dana ko layaa boromam bisum pecc Insa moom la njëkk taaj muy lox waaye nag ku ko nar a nag mooy yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man kunkande soldaaru kooku te gëñ naa si ku ni bindi bakkan bi man gisuma benn doomu aadama boo xamante ne yaa ngi dégg koo xam ne man gën nga maa bëgg yonent bi sallallahu alayhi doomu adama yi ñi ngi rawante si bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa xamoo sëriñ bi yow tey boo jeexee si yonent bi xaqiqatan duuna taxmini su amul benn werante boo jeexee si yonent bi rek barki yonent yàlla ma nga julli si yonent bi mën ngaa dugg si biir armel bii oo néew mu jóg mu wax ak yow parce que foofu tey yonent bi dafa nekk loo xam ne tey doomu adama yi bari xamuñ ko pourtant xanaa xamoo yonent ñaari yonent la Muhammadul Basharul laakal Bashar dafa am yoon boo am nit la am na yonent boo xam du nit yonent bi mooy nit mooy Muhammad ibn Abdullah moo tëdd Medina moom la gars yi di jaare ji waaye Muhammad Rasulullah jëmm la joo xam ne ruux la dafay dox kooku bis bu taxawee aalam bi dafay tukki parce que yonent boobu mooy mooy mooy aalam bi moo tax boo demee si Taysiir Seydi Aji Maalik nee na xaqiqatul kawnu ayni zaatikal atuhu ifaadatullaahi mu ne nuurullaahi yallaahu yallaahu Baay Aji Maalik nee na yonent bi dëgg-dëgg maanaam mooy kawnu gi mooy aalam bi yëpp ifaadatu yonent bi mooy bëbëb boo xam ne mooy mooy mooy leeru jaamu yàlla yi képp ku am may rek yonent bi moo nga ko amee ifaadatullaahi mooy may moom mooy mayab yàlla ci nuurullaahi yonent bi sax mooy leer gi kon ñun ñëpp tey si leeru yonent Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam boobu la ñuy dund yaa ngi dégg yonent bi sallallahu alayhi si leeram googu ngay solee si yére yi rafet yi ba mën a taaro ñëpp di la gis sëñ bi gisoo ni nga rafet takk montar yi rafet man kay yaa ma a taaru leer googu noonu la gars yi di gis ci yow kon boog damay fàttali suñu bokk jullit ne leen maanaam soldaar yonent yi salaay salaam amul luñ mënut gannaaw tey maanaam benn ànd mooy jël jël benn bant yatt ko ñaan ci yàlla yàlla nangu mu taxaw si kaw air bi kon yaakaar naa ne taalibe yonent bi salaay salaam taalibe yàlla bi war naa mën a tey xotti géej la taxaw si kaw ndox bi alaaj salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum e beneen information Kounkandé daw na Kounkandé jël na bato bi léegi génn na Dakar dem na ci ko a récupérer topp ko bato a Kunkande daw na de Sénégal Kunkande daw na Kunkande daw na information bu leer laa leen jox jël na bato bi génn na Kunkande daw na génn na Dakar